kuréel gi la ñuy dippee du Rayaahin amal na ab communiqué juróomi fan ci weerub janvier ci turu Serigne Cheikh Mouhamadou Mountakha Bachir Mbacké di xalif général des Mourides ci googule communiqué lanu ca mën a nemmeeku bokk na ci ñaawlu yàquteeg jamono ci ay jëf yu ci mel ni wàllu corruption waaye tamit wàlluk homosexualité communiqué bi nag dal di dikkat bu baax a baax ci ci mboolem ay yi nga xam ne alxuraan dal dina koy tudd di ñaawlu rek jëfin yu ñaaw yi nu mel lu ci mel ni suraat bi la ñuy dippee laxaraaf nga xam ni dal nay feeñal bu baax a baax ni jëf bu ñaaw gi nu mel amul genn xeet boo xam ne def na ko lu dul lot ci googule communiqué ba léegi daal dinay dikkaat ci ani nan la alxuraanul karim daal di ñaawloo bu baax a baax jëf yi nu mel waaye tamit yan daan la ci tekk ngir képp koo xam ne jot na koo def ci jamono yonent yi jiitu it daal dina ñuy ñaawlu li nu mel waaye tamit tànkaafu ci ñi nga xam ne ñoom ñooy seeni xeet ci jamono yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ko jege woon lool it bëri woon nañu lu nuy addu ci mbir mi ngir nag gën cee dànkaafu mbokk jullit yi waaye tamit dal di mbooleem daan yi nga xam ni képp ku def li nu mel yooyu le daan des koy teg ci sa kaw communiqué bi ci ponk yu njëkk yi mu ngi cee ñaawlu jëf yi nu mel waaye tamit képp koo xam ni yaa ngi dooleel li nu mel ci ñaareelu ponk bi mu ngi sàkku it ci mbooleem jullit ñi ñu dal di jëfee ak tamit wéye li nga xam ne alxuraanul karim moom la fi teg ci ñetteelu ponk bi it bi communiqué mu ngi dooleel mbooleem jéego yi nga xam ne ñu ngi àddu ci xeex wàlluk ñaawteef yi nu mel ak tamit di ko dénoncé bu a baax ci ñeenteelu ponk bi bi mu ngi sàkku ci mboolem askan wi ñu daal di nag ànd ci xeex bi nu mel ngir euh, mën ko fee jëlee ci jeexintal bi nag communiqué bii de mu ngi ñaan ci suñu borom subhanahu wa taala mu daal di ñu yërëm waaye tamit di ñu teg ci yoon wi nga xam ne mooy yoon wu baax wi